Heavy Bass.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 jaasi xaw tuut mu ñàkk bakkanam musiba naaru lay père de famille bi mu ngi woo ci turu dëkk ca Mbour quartier Espagne moom daal ñaari jaaykatu yàmbaa yi kii di wuyoo ci turu am ñaar fukki at ak ñaar ak Aba am fukki at ak juróom-ñeent ñoo ko song ca këram dal di koy gorete ay jaasi ba deret gi sang ko bu ñu demee ba yaakaar ni nag sa waay dee na ñu dal di koy diri fu sori dal koy sànni ma ne ay nit yu romb ñoo ko mu gis dal koy wàllu yóbbu ko ci hôpital bu Thierno Mouhamadou Mansour Baro ñu dal di koy yóbbu urgence defal ko ay soins intensifs ma ne yàlla ci jàpp waaye xaw tuut mu ñakk bakkanam sawaay bi mu ximmili ko dem ba génn hôpital ci la defee ab plent contre x te commissariat central bu Mbour naka noonu bi gaa yi lankete la ñu mujjee teg ñaari jaaykatu yamba yooyu bi ñu leen di teg loxo sax ñu leen fekkee ak benn kilo yamba yamba yu tegal onze kornetu yamba ma ne drogue bii rek tax xale yi di def lu ñuy def li ci gën a ti doy waar nag mooy ñaari def ko ti ñaawteef yi bi ñu leen gësamee la ñuy doog a xam ne Emer Diop mi ñu agressé woon corete ko ay jaasi ba yaakaar ne dee na deewul ci lañu ñu nag passé à l'aveu ne dañoo juum ndax ki ñu bëggoon song du père de famille boobu ki ñu bëggoon song mooy policier bi fa affecté te seen mafia bu ñu teg mu teggi ko moom la bëggoon effacer éliminer ko ay way moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a korona la la xew ca Cees romb na ab soxna bu am jëkkër la fa ab noddukat ëmbal ndaw si wasin dal faat doom ji musiba naaru lay ndaw si nee ñu dafa am problème ak jëkkër ji dal di dem këram toog ba li ko mujj dal ci diggante bi fa la ko dalee fi mu ne ñu ko teg loxo ma nga mag bu Cees di ko toppee homicide involontaire ndax kan nee ñu ndaw si dafa wasin biir kër waajuram bi doom ji génnee mu jël lañ set dal dagg kordon ombilical ba du mu demee ba constaté ne doom ji ñàkk na bakkanam ci la ko doon jéem a nëpp nëppal way jur yi jël xale bi dal di yóbbu l'hôpital bi waa l'hôpital càmbaree xool xoolaat gis ne cordon ombilical ba dagg nañ ko te faat xale bi lañu ne yaa ci boppam kon moo faat faat xale ba bi ñu gënee pousse l'enquête yi lan ndaw si moom tamit passé à labo ne ba mu amee problème ak jëkkëram tokkëram la doon génn ak noddukat ba doom ji noddukat ba mooy baay ba moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Pikine Technopole romb na doy waar fecckat bi di Aziz Dabala ak beneen waay la ñu fekk ci seen appartement ñu faat leen ba noppi delloo buntu ba fi mu ne nag lu tax ñu faat leen ak ngi leen faat police danañ ci ubbi ab enquête <laughs> ma ne ko lépp dana leer réew mi léegi fu nit di mucce laa xamul dañ lay fekk ci sa biir appartement ray la ngay dox nu ray la nga nekk sa oto nu ray la ngay xëy liggéeyi ñu ray la ngay yewu di jaamu ji yàlla ñu ray la waa réew mi léegi fan la nit di mucce kan da moo rekk ku kutt te tay ko ñu kutt la mu doonoon seen xibaaru buzz dig daajo beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz